am na lu mu néew néew néew néew néew néew fukki gendarme ñu sànni ñu grenade lacrymogène bi ñu sànnee grenade lacrymogène ñu jàpp ay liggéeykat bi ñu jàppee ay liggéeykat ñu jàpp Aliou Gérard Koita ak man ñuy profité d'ailleurs ci occasion bi pour rafetlu teewaayu suñu mbokk nitu dëgg valeur ñi nga xam ne ñoo fi nekk Ousmane saar nekkoon na fi sànq mais dafa am rendez-vous neuf heures et demie moo taxoon moo tax moo tax mu dem te ajuma bële passé ñëwoon na fi waaye balaa moo si fekk na gendarme yi tasaare nañ manifestation bi donc waa tu dëgg des valeur ànd ak euh, ñoom Ousmane saar ñoom Karim Gueye xurum xaax ak ñoom seen ñu ngi leen di gërëm di leen di sant ci seen teewaay tey ñu déposé waat pour manifester bii paa commandant bu gendarmerie bi moo ñu woo démb nañu mën naa autoriser manifestation bi da ngeen laajte huit heures ba tisbaar quatorze heures waaye mën naa ko autoriser bu fekkee nangu ngeen huit heures ba dix heures wax nañ ko ñoom Ousmane wax nañ ko ñoom Yoro wax nañ ko ñoom Xaasim bi ñu waxtaanee suñu biir ñu ne fi ñu déparé mooy dañ ñu tas jàppuñu door dóor ñu gazé ñu ne ñu du ngeen fi manifester tey du ngeen fi manifester ëllëg foofu lañ jóge une semaine après ñu ne ñu mën ngeen manifester waaye ñaari waxtu naam amuñu lu ñu bëgg ndaxte dañoo bëggoon manifester huit heures ba quatorze heures waaye bu ñu amee huit heures ba dix heures am na jéego bu ñu jot a def dañuy jàpp ci loolu soog a avancer tàccu leen seen bopp. lii mooy seen ndam maanaam li ñuy faral di wax seule la lutte libère maanaam kuy bëree daan kuy bëree daan de boo bëreewulee ñàkk nga naam boo bëreewee mën nga ñàkk waaye mësuñu gis ku am ndam te bëreewoo naam mën nga daanu de <laughs> waaye pour am ndam foog nga bëri bëri ngeen benn bëre muy alxames bale paase ndam baa ngi nii mooy saay bu ñu laajte waatee manifestation dañ ñu koy may wala ñu foqati ko sañ-sañ dañ koy fokkati boo bëggee aar sa sañ-sañ dañ koy foqati bul toog di yelwaan buñ fi nekkoon di ñërëmtu buñ fi nekkoon di méttitlu buñ fi nekkoon di ko naqarlu suñu xol te bañ ko naxarlu ci jëfin kon lii duñ ko am kon yéen mii nga xam ne yéen a mobilisé wu alxames ba le passé ñu gazé ñu ñu gazé leen ci diggu weeru koor ak koor nu mu méttee ngeen mëkk grenade lacrymogène bés boobu xam naa ne heure ndagu mel na ni day pousse rek di arrière rek di arrière rek waaye ngeen muñ ko ngeen ñëw fii ay jàmbaar ngeen wax naa ko ñoom Ousmane bi ñu ñëwee suñu siège frappe barki demb ma ne leen li ñuy njëkk wax mooy félicité leen yéen ay jàmbaar ngeen yéen ay patriote ngeen yéen ay guerrier ngeen yéen la ñuy jaajëfal yéen la ñuy félicité président Macky Sall nag président de tous les sénégalais au lieu que muy recevoir ay maire opposition yu muy ger yéen la war a recevoir représentant travailleurs yi la war a recevoir pour déglu leen pour xool naka lay ñoŋalee seen nekkin ci bërëbu liggéeykaay yu mel ni Sénécor Linda waaye koo xam ne bés bu nekk yaa ngi xool noo nooy faagaagalee Guy Marius Sagna yaa ngi xool nooy faagaagalee Abdou Karim Gueye xurum xaax yaa ngi xool nooy faagagalee Ousmane Sonko yaa ngi xool nooy faagagalee capitaine Touré yaa ngi xool nooy faagagalee Ahmed Aydara yaa ngi xool nooy faagagalee Bougane yaa ngi xool nooy faagagalee liste bi gudd na mais doo am jotu bi nekkinu liggéeykatu Sénégal te nekk te nekk te liggéey katu senegal métti na fii ci Sénécor Linda këyit bii ma gàddu boobu ak léegi mooy bulletin de salaire yi ñuy joxe fii te bulletin de salaire bii. weer bële paase lañ ko joxe 1983 ak tey fii ci Sénécor Linda musuñu am bulletin de salaire jàmbaar yii góor yàlla yii ñoom ñoo ko xeex ba am lii donte lii baaxul de donte lii baaxul donte lii taxuñaa jóg waaye lii déjà beneen ndam la lii taxuñaa jóg de dañoo bëgg bulletin de salaire en bonne et due forme dañoo bëgg bulletin de salaire boo xam ne waaw dëppoo na ak li ñu woowee bulletin de ba mais lii lii même boo jëlee lu sax doo ni mais doo xam li ci biir kat daf fi nekk liggéey fanweeri fan amul benn kayit fu am pointage ngir weer bi bu deewee ñu firndel ne kii liggéey na fukki waxtu wala ñaar fukki waxtu wala téeméeri wala téeméeri waxtu xalaat leen rek amu leen fi ngay pointé amuloo bulletin de salaire léegi yow nga liggéey ñu jox la trente cinq mille weer dee ñu jox la cinquante mille weer dee ñu jox la quarante mille loolu dëgg la loolu yoon la lii la ndaw yii di xeex ne liggéeykat du jàmm moo tax ñun waa FRAPP ñu jàpp na li ngeen di xeex dëgg la yaa ngeen koy xeexal seen bopp yaa ngeen koy xeexal défaillant yi fi nekk yaa ngeen koy xeexal traître yi fi nekk waaye yaa ngeen koy xeexal mboolem entreprise bu nekk fii ci zone franche industrielle ndaxte lii xaw fii Sénégal Linda yéen xam ngeen ko de moo xew ci yeneen entreprise yeneen wër yëpp avec la complicité de l'État du Sénégal xool leen kanam yi fi nekk xool leen kanam yi fi nekk man maa fi gën a màgget kanam yi ay kanamu ndaw la il y un an le président Macky Sall mu ngi doon lancer le programme xëyu ndaw yi xool leen kanam yi fi nekk ay ndaw ñoo fi nekk xëyu ndaw yi président Macky Sall mu ngi tàmmalee ci xool ñi xas ba am ay xëy jaarul yoon nga jubbanti ko nga jooyanti ko xëyu ndaw yi foofu lay commencé nit ñi dañoo foog ne ñii di jël gaal yi mooy ñoo xam ne amuñu xëy amuñu gontu loolu njumte la de ñi ëpp ci ñii di jël gaal yi mooy ñi nga xam ne dañoo daan seen doole ba sonn gis ne mënuñu fi réaliser tous gis ne boo moytul fin du mois sax dañ lay fay bulletin nul waaw am na entreprise yoo xam ne fin du mois bulletin nul lañ lay jox zéro franc dañ lay dagg dagg la dagg la dagg la fin du mois nga gis zéro franc mais ñooñu ñoo ëpp ci ñi di jël gaal gi ndaxte dañuy naan man maa ngi góorgóorlu maa ngi daan sama doole waaye mënu ma sax am lu ma fayee luwaas trente cinq mille ban luwaas la mun fay quarante mille ban luwaas la mun fay ban facture courant ban facture ndox mais quarante mille ban korité la mun waajal ban julli la mun waajal lii mooy rongañu baadola mooy cere buur lii golo di béy baabu di dundee mooy lii rongañu baadoole bi amoon fii ci bërëb bii moo jur lii entreprise bii noonu la de bi liggéeykat yi nekkee fii ci bërëb bii kenn fayu leen seen àq kenn fayu leen seen yelleef kenn fayu leen seen droit seen dara matul yooyu noonu ñuy dagg di dagg di ko sàcc payoor bi ngeen war a ñu compal leen si tuuti te seen payoor la jox leen loolu lañu dajale moo jur lii moo jur bii ndaxte baax na journaliste ñu xamal leen ne batiment bii moom moo topp ci batiment bële ñaari batiment yi benn usine la muy Sénécor Linda li ëpp ci xaalis bi nag ñu rawale ko yóbbu ko kore ndaxte Sénécor Linda ay coréen ñoo nekk ci bopp bi seetal ma lii rek yow président Macky la askanu Corée falu la askanu Sénégal moo la fal ay doomu Sénégal ñu leen di noot ay coréen di leen di noot yow nga jël gendarmerie di dal ci kaw doomu Sénégal alors que yow nga waroon aar askanu Sénégal bi nga xam ne mu ngi ci biir Sénégal waaw bu fekkee ñun suñu président mooy dal suñu kaw ak gendarmerie ak police fekk ñoom ñu ñuy noot biir Sénégal kon ñun sénégalais bu ñu demee Corée lu ñuy dal. kon président Macky Sall bu naxarloo sénégalais bi ay policiers dóoroon fële ca Italie day wax lu ko neex ndaxte moom mu ngi seetaan di ñu dóor fii di piétiner suñu ay droit donc mbokk yi lii du dëgg du yoon ay jàmbar ngeen bu leen xeeb li am fii tey l'islam bi nga xam ne. ñi ëpp ñi fi taxaw moo leen ëppal solo lu nekk bi muy door ci kenn la commencé lislaam ci boppam nga xam ne ñi fi teew ñi fi ëpp moo leen ëppal solo bi muy commencé ki ko sos ay mbokkam dañ ko dëddu ay dëkkandoom dañ ko dëddu waaw dañ doon compter benn par benn bu ñu compter tey balaa ñoo compter ñaar ñu toog weer waaw kon yéen ñun ñooy ñan ba lu ñu sumb mu war a gaaw rëy duuf bëri nit kon bu leen xeeb tey li am fii zone France industrielle bu ngeen di xool grève bu mel nii ah xam naa ne foog ñu demaat ay 1960 1970 loolu moo tax ñeent fukki auto gendarme génn bale passé ndaxte li ngeen di def nii ñoom danger lañ ko jàppee na seen xel dal de ñi nekk ci biir fii ak ci biir fële ñu ngi leen di déglu <clears throat> lii ñuy def nii dañuy xeex waaye dañuy ji itam jiwuñu ci joor yi jiwuñu ci tund yi waaye ci xelu liggéeykatu Sénégal Linda la ñuy ji ci xelu liggéeykatu zone franche industrielle la ñuy ji ci xelu askanu Sénégal yëpp lañuy ji ci ne ku fi bëriwul ku fi xeexul fekk ñuy salfaañe sa sañ-sañ yow la neex et que bu ñu xeexee dinañ am dara yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def dinañ am dara fii ci Sénégal Linda donc ñun nag li ñuy wax mooy waa Sénécor Linda nañu fay seen àq ak seen yelleef liggéeykatu Sénécor Linda 380 francs waxtu bu nekk yéen loolu xel mën na ko nangu liggéeykatu Sénécor lindaa mu ngi fayeeku waxtu 380 francs ah 10 heures de temps muy xaw ma ñaata 3080 francs francs mais 3040 francs boo ko liggéeyee fanweeri fan sax ëpp na 90 000 waaye kenn ci ñoom mësul fayee ko 90 000 di nga liggéey fanweeri fan yu mat sëkk doo tardé doo absenté doo feebar mais doo am sax 80 000 doo am sax 70 000 maanaam benn liñ lay fay du dëggul du yoon 380 000 waaye deuxièmement liñ la war a fay sax dañ si comp jël si lu bëri denc ko ñoom ñoom baabu nii di siim seen cere di siim seen jesneer yi ngeen doon wax di siim seen oto yi ngeen doon wax di siim seen kër yu fees dell Dakar di dem siimi correct ñun nag ñu des ak fande lépp yokk Sénégal lépp yokk luwaas bi dafa yokk ndox bi dafa yokk courant bi dafa yokk ceeb bi yokk diwlin bi yokk waaye payooru Sénégal linda 1983 ak tey daanaka yokkul 380 francs ba kañ président nag wax naa ko fi sànq moom lañuy njëkk a moom moo njaboote askanu Sénégal moo njaboote liggéeykatu Sénégal na bàyyi syndicaliste yu muy corrompre wax ngeen ko fi de li ëpp ci syndicaliste yi dañ leen jënd ba tax kuy lekk mënul wax kuy lekk mënul wax te ñoom bokk nañ ci ñi di lekk seen ñàkk donc président Macky sàll gëstul askanu Sénégal président Macky Sall gëstul liggéeykatu Sénégal président Macky Sall gëstul liggéeykatu Sénécor Linda may interpeller itam syndicalistes yi am na ay syndicalistes yu ñu corrompre jënd leen ñuy ay daggu coréens yi waaye ñeneen ñi am na ñoo xam ne kenn corrompre leen bu leen tiit bu leen ragal fii kenn du leen rey fii kenn du leen fees yàlla rek moo fi dul jeex yàlla rek moo fi nekk kon ñun ñëpp nañu ànd def benn say lii nag moo nekkoon ñaareelu jéego bi félicitations félicitations félicitations bu lii passé nañu xayma liggéey bi benn lan moo tax naka la ñuy fexee ba nit yi gën a bëri yoon bale passé ñaareel bi naka la ñuy fexee ba jigéen yi nga xam ne dañ leen di chantage sexuel fii ñenn ñi ñëw ci manifestation bi ndaxte tey ay góor dong la. dégguma nag ñu ne dañuy chantage sexuel góor yi waaw naam homosexualité mbiru góor jigéen am na ci Sénégal waaye dégguma ñu ne dañuy chantage sexuel góor yi jigéen yi yu nekk Sénécor Linda pour ñu euh, pour ñu mun wëy nekk euh, maanaam ci biir entreprise bi wala ñu mun am ay avancement dañuy ñëw ne leen promotion canapé waaw kaa ñu jaar fenn comme ça ñu yokkal la wala ñu avancer la loolu dafa war a jeex. donc jigéen yooyu dañu fexe di waxtaan ak ñoom ci conférence de presse bu ñu defoon siège u FRAPP amoon na ay jigéen waaye tey nag jigéen yi fi nekk ñoom ñëpp ay journaliste lañu wala bokk comme sama yaay bi bokk nitu dëgg valeur waaw jigéen yi fi nekk ay journaliste lañu wala bokk nitu dëgg valeur bu Abdou Karim Gueye xurum xaax donc foog ñu xoolaat mbir mi xoolaat sàppe yi gën ko ñoŋal ngir prochaine manifestation mu gën a am doole. balaay boobu nag wax nañ ko ñoom Ousmane guerre mondial sax ci table lay mujjee waaye ngir ñu gaawal dem ci table bi ngir bu ñu demee ci table bi ñu wax ñu loo xam ne dëppoon ak suñu njëriñ foog ñu wane suñu bopp te lii ci wane suñu bopp la léegi nag bu jaree toogaat ak ñoom ñu toogaat ak ñoom ñu waajal beneen manifestation mun nañ ci xalaat waaw. beneen yoon xëy na est-ce que du ñu jógee rond-point dox ba fii bu ñu dox si wee ba fii ñu déposer benn mémorandum dox rond-point ICS amul jël Ndiaga amul dara nañuy jox rond-point ICS ba fii bu dee ci nu mu gën a gaawee réglé ñu problème bi nañu waajal manifestation bu mel noonu wa ilaa ngeen am une meilleure proposition bu fekkee am ngeen gis-gis bu gën a rafet amul benn problème waaye tey proposition bi bay sànni ci pañe bi ñu demaale ko ñu xalaat si buñ ko mënee ñongal ñu gën ko ñongal mooy prochaine manifestation rond point ICS la ñuy jóge dox ndànk dox ndànk ñëw ba fii ci lettre bi ñuy déposé préfet pour xamal ko ne dañuy manifester ñu xamal ko ne rond point ICS la ñuy jóge dox ba fii te bu ñu egsee du ñu egsee rek wax lu ñuy wax dañuy déposer ab lettre de protestation te dinañ ko déposé donc lii mooy li nga xam ne moom laay dugal ci biir maanaam maanaam ci biir panier bi di leen di jaajëfalaat waaw dinañ di félicité waat euh, ñi nga xam ne ñooy ñëw réunion ci ci siège FRAPP ay jàmbaar leen dama bëgg ngeen xamee ko noonu et que ñi ngeen jiital yéen na leen ëpp solo Sénégal nga gis njiit mu ëpp solo ki ko jiital waaye yow ki la jiital moo la ëpp solo. waaye ñi ngeen jiital muy ñoom Ousmane ak Yoro Xaasim ak ñoom seen bu ngeen buggee ñu am doole yéen itam na ngeen taxaw tem comme ni ngeen taxawee nii yéen itam na ngeen jàpp ci liggéey bi waaw xool beneen yoon naka lañuy ñuy ëppee lii waaye nu mu munti toll dinañ manifester ndaxte lim kenn du ko xeeb donc lii moo nekkoon kon li nga xam ne moom laa buggoon a wax di leen di féliciter ndaxte xeex bi ngeen di xeex yéen ngeen ko xeexal. seen rakk yi ngeen ko xeexal Sénécor Linda ngeen ko xeexal maanaam liggéeykat yi liggéeykatu zone France waaye tamit Sénégal yëpp ndaxte tey am ngeen ndam bu rëy a rëy ginnaaw ndam bi waaw naam ñëpp jotuñu woon ci kayit bi waaye am na ñu ci jot xeex bi nag dafa war a wéy ba kayit bi gën a mag te ñëpp jot si ba pare ñu joge trois cent quatre-vingts francs jëm ci mille francs l'heure waaw jógee trois cent quatre-vingts jëm ci mille francs l'heure te mën na nekk voilà ñu fay leen seen prime fay leen seen indemnité liggéeykatu euh, Sénécor Linda jëm kanam Sénégal jëm kanam jërë